sëriñ alxaaji ñang bay fal mi yàlla may lool ci wàllum ñaan mooy ànd ak yéen ci xew xew kër gi problème mu heure laa laa am ci ñoom. problème waaye problème mu leneen ngeen. waaye ñax da ngaa yow kër gi moom da ngay rek amul génn amul dem fenn doo dem ndoxi sa yitte nag ah. koy soppali campagne bi génn kay laa ndax fi ne nii kilifa laa ci dëkk bi te moom affaire yi daam daam dañ lay topp boo toogee sa kër nag ñu ne yow bëggoo gisi nit soo génnee ñu tuumaal la léegi kay moom sama weram daal sama ëtt sama nekk. te sax te yow sax mënul lool. waaw. yow loo bokk ak Lamine Gueye. Lamine Gueye nag. fekkente ne yow yaa ngi lay làmbatu si yow réew mi. <laughs> xam nga lu sa problème. yow xamoo yii man mi xam yii. man baal ma sor sama tool. sañ say doomu xaram. salaamaaleykum waaleykum salaam. ah ki doon laajte Fallou Gueye. <laughs> ku doon laajte faali ngoy feeñ na. waaye eh namu naa la de. maa raw xam nga fii la ëppee. waaw ci lu ii maa ngi dama namm rek. xoolal damaa mel. ah su la bàyyi non non non non je je non non je veux je veux attendre dans la vie pour pour pour avec toi te rester des maisons là. toog naa toog toog ba sonn. ma ne mais ma ma ma ma man kay xam naa ne moom may dàq am na lu tax. Euh, oui ma déglu fi déglu fi dama lay présenté yow bàndoo la la waaye dama lay présenté kii mel ni mbaa moomul kàddante. xoolal xool ay waaye ndaw Samba ay waaye. ba léegi. xoolal moom bu ngeen sëy yéen ñaar ak tungal ngeen fi indi moom. waaw xam na laa bëgg nga xam baadoo la nga yow baadoo la nga. yow yaa ñàkk fayda kii mel ni mbaam amul kat dante nii nga la yow njaxat yow kañ ngay noppi. boo ko bàyyee. yow da ngaa baadoo la ah. xamoo buur saay na loolu laa dam loolu force la mu neex la mu mu mu naqari la kii moo mën a gënal moo ma gënal seen waa kër gënal ma sa nday gënal ma baay bébé na mu naan. eh bébé bi léegi moom la sa yaay. yow ñax yow lii la mu doon mënoo ñoo dimbali. yow da ngaa foog ne nit ñi xamuñ li daw fii nii. Mm, lu muy daw maa bëgg nga rek la dégg nga su nekkoon man ak man dong man ak yow ñoo génn ba léegi yaa ngi ko. bi léegi day fenn bi léegi day fenn bul tax ma wax nag noppi. li mbëtt bëgg rek nekk. déedéet bii bar bëggul loolu wax kay yow ba demee salle massage ba. Eh, eh, gerte ñu la moo xoon. dana ko ko wax ëmbal. waaw. déet moo wax loolu. man may ma sama jàmm. yow yow nag ñaar ñi yéen a yam yéen a ànd du dégg bëccëg. xaw ma looy def ak sama xarit bi xaw ma looy nag su nekkee mën ngeen ma yàq ma wax te nekk tey na mu tey nga may woote. doo toog. Ndiakhate yaay baat loola. bilaay kii kii xool ko amul tànn sax xool ko. waaw yow Ndiakhate. waaw bàyyi la. Ndiakhate baal fii ma bàyyi. wàcceel tànk ma ne baal fii ma bàyyi fii. Ndiakhate. waaw ah. xamal lu la wax. man yow waa doola nga. doola nga xaram yow war nga maa yàq. da ngay kilifa ci dëkk kii da ngaa xam lan laa koy waral. damay bañ ma ne fii ci dara da ngay kilifa ci dëkk bi. te yow bu fekkee kilifa nga nag day am yu bëri da nga koy daw. yow yaay yow yaay indi seen dëgg rek am na ci loo xam ne rafetul daf nga lu ñaaw te dangay waaju baax daf nga lu ñaaw te yow doomu nit ku yiw nga daf nga lu ñaaw kilifa nga ci koñ bi kilifa nga ci koñ bi yenn yi waru la dafa am loo xam ne yow lii waroo ko la yàq ndax xamoo lan laa si man damay étiqué ah, dëgg la waaye damaa bañ yow bu la yóbbuwoon bu la yóbbuwoon man maa lay jël si danaa ah. ñaan yàlla ñu yóbbu ma nii salaamaaleykum ayo laari laari ayo laari laari def nag xale bu xeex bi daa a xeex waaw waaw. xale bu ñuul kii de nuyu nag ñu kenn ko def. ñu nga xam ko xam lu xam waaye nag même ki boo ko xamul. déedéet ñëw ne salaamaaleykum nuyoo jullit ñeeku waaleykum salaam. xam ni dañuy ñëw dégg sa tur ci mbedd mi ñëw dugg sa kër di la xelal. waaye njaxat yow kañ ngay noppi njaxat yow mën ngaa war ne man xamoo xam nga la de. njaxat man mi xamoo ma man. déedéet man waaw. ah damay bëgg a waar wala. déedéet. Njaxal man xam nga ma yow. yaa ngi est-ce que xel yow. yaa ngi xalaat bu baax na xam nga ma wala xamoo ma. man ko sàccu bi mi ngi fa woon. mi ngi ci biir la yaakaar naa ne. <laughs> man mu ëmbalee nga war a faral. laay laay ba pare nga tax. ku waaw bu la neexee nga fàttali ne yow yaa ma ëmbaloo la ëmbaloo ma yow nga ma laaj ku ma ma eh, yow eh, ëmbal. Eh, xam naa ne am càgg la. nga ma nga noppi nga may ma sa nopp bu baax bi laa wax. wala waaw waaw waaw waaw. yéen a jàllab yow njaxat war ngaa laaj te ndax man kat ma ëmbal wala ëmbalu ma. yow da ngaa fàttali la waaye la 14 kenn fàttewu ko guerre mondiale la 14 kay kenn fàttewu ko. waaw maa téye fi tànk booy naan koo def 14 yow da yaa jaraw yow la 14 nga tëddee ma ah bu ma ñëwee nga naan ma couvre-feu bi couvre-feu bi France bi yow mois de mars mois de décembre yow yow njaxat yow lan mooy sa problème yow mois yi yëpp sax ah yow janvier man maa ko def nag njaxat man mii maa ko def man man mii ñàkk fay da dina jox ba may ëmbal yow mii ba pare taxaw fii naan ma ay du man yow yow yow yow yow teg ma stress bu ma xamatu fan laa koy waxatee si àdduna yéen a bon yéen góor gu mel ne yéen moo tax jigéen ñëpp gedd góor waaw jigéen ñi fi jagatu ñëpp di fi taxawaal ñëpp c'est à cause de yéen waaye man maa ko def man mi ñàkk fayda ah doo koy dugg si yow sa kanam ngir menow daal xam nga loolu juróom ma di ko seq yow nga di ma baaj baaje ba heure boobu la ne waaye nag man man mi maa war a yedd sama bopp waaye waxuma laa wax daal ndax yow ku ñàkk fayda nga waaw bu tommee ma ñàkk fayda bi ay bare na yéen ñaa ñëpp laay wax ak ñàkk ngeen fayda trop yàq àdduna jigéen ngeen fi nekk waaye ne la leen soo ko tagul man ak yow la waaw bu la leeree ne man ak yow ba tribunal rek mu sa jàmm yaram da ngay fen jabaar sax xam ne da fen man mënoo ci man dara fenul yow day fen kii dama bëgg a tubaab yow yaay fen tax ma la dafa ndànk am doo eh, ma lay dóor yow di ma yegg fii lépp gis nga daf yi mu jàpp ñaan daa jàpp ay desam la ay desam la yeey ay data am na ay data ndax bu mu fi jàpp rek sa def da nga maa a dama bëgg a tëj jaxat xale bii ba nga yàggee dugg ak moom bi génn ak moom yàgg na. baleen lii bëriwul bëriwul bëriwul bëriwul defal ndànk. déglu ma juróom ñaari yoon doog la nga mën si jël. même boo ko riisoo sax mën na ko mën na cee jëlee. riisu rek mën na cee jëlee bàyyi leen lii yow ak ñeneen ak yow fi ne yow Ibrahima Ndiaye Pablo yeneen ak Talla Sall déglu ma rek. nit boobu xool damay ubbi de danga may déglu ma wax nag danga may déglu ma wax ndayam danga may déglu rek nit ki boo ko ëmbalee waaye ñeeku maa la ëmbal. waaye bu doon ak man ko la ñu ànd yow bàyyi ma yow waaye ñu ànd maa yow ñu dem laa xam ko ay mbokkam xam ne ñun am ëmbal nan ñu daal di ngénte mu jeex ah am na ci loo xam ne rafetul nangul nangul bul kenn du la tëj fini da ngay nangu noo nangu ñu ah! bañ